celui de concrétiser le dernier souhait de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul sur terre, à savoir bâtir à Touba un lieu d'enseignement d'une dimension digne de la ville sainte de Touba. Le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou a pris l'initiative de construire le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation. Serigne Mountakha Bassirou a procédé ce mercredi à la pose de la première pierre de cet institut. Le Khalife général des rendre Mourides du monde combien il tient à la réalisation de l'université de Touba. ak ci jotaay bii mel na ne xam ndax dara bettuma ci te fu ngeen bëgg mu àgg da da da ko weex loolu rek laa man maam laa laa xam moom laa moom laa am yaqin ba nga fa jotaay bu njëkk ba bii xamewuma ko lii dara bettuma ci. te am naa yaqin tam ci ci kanam lan mun na ñàkk ñaan rek suñu borom sàmm leen ci yàggal leen wéral leen ba ngeen mën a nekk ci liggéey bii na ngeen ko yéenee loolu rek la ni ñaan waaye amul ci dara loo xam ne doon bett sama sama am naa ci yaqin

Touba est une institution d'éducation, de la formation fondée sur la vision éducatique de Cheikh Ahmadou Bamba.